métier mi njëkk ci àdduna te gën a barke mooy métier am bay ndax moom la yàlla joxoon yonent yàlla Aadama bay nag ba ci gën a rafet mooy buñ bay bayaat ko te su fekkoon ne wax dana doy konoon xadis du am alxuraan dafa doy lépp ndax mooy téere bi nga xam ne bàyyiwul dara lépp mu ci biir la yàlla wax ci biir alxuraan muy ay àtte dafay dox ba jamono bu munti doon su ñëpp baaxoon alxuraan dana àtte su ñëpp bonoon dana àtte kon duñ mun a wax rekk ne waxoon neen doy na ki nga xam ne nag xelam seytaane la yor dafay yàq te bëggut lu baax dafay jëfandikoo benn wax boo xam ne dafay mel ni yahuut yi lañ doon wax dana rafet ci kaw waaye du baax mooy ne euh, warut cee waxaat ndax lu paase la maanaam euh, dafa am loo xam ne bu balaa xew dafa am nuñ ca war a waxee su xewee dafa am nañ cay waxee su paasee dafa am nañ cay waxee Eh, moo tax nag wax ji du mën a ñàkk njëriñ la may wax nag mooy di ndokkeel taalibe yi su ma ne taalibe yi nag du jëm ci benn kër wala jëm ci taalibe yi topp benn sëriñ waaye dafay jëm ci taalibe yi nga xam ne li yàlla wërsëgal seen sëriñ umput leen ñam neen ca xam neen ko te te jëriñu neen ca mooy ñi nga xam ne ñu ngi doon wax te lépp lu ñu doon wax lu rafet leen ci jublu woon saagawuñu kenn xasuñ kenn lañ doon wax dëgg la goo xam ne sukkandikuwaay waaye seen dëgg googu mooy sunnatu rasulillahi wala alquranul karim maa ngi ndokkeel ñooñu di wane ne mbir mi fi xew li alaaji Habib doon wax rek su pënd bi wuree dineen xàmmee naa ak pël tey bi lépp dalee mun nañoo xàmmee ban moo am ci e, wërsëgu sëriñam ak ban moo am ci yaru sëriñam ci xaal ci maqama ak ci xam-xam ndax ñun ñëpp nag dañuy liggéey ci suñ làmmiñ ak sunu loxo war koo werse ci suñu gafakaay sëriñ wala suñuy muqaddam wala suñuy jëwrin kooku teewal ko werse ko ci sëriñam suñ sëriñ bu mag bi nag mooy werse ci kanam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul nag benn gafakaay sëriñ bu mën a nangu taalibe bu la liggéeyal ci ay saaga ci ay xaste loolu moom kenn mënu koo nangu kon ñu xàmmee ci ñu xamee ci te xàmmee ci ne ñi doon saaga ak xaste ak saagay kilifa bokkuñ ci ñun duñ taalibe benn sëriñ wala buñ doonee taalibee jamono boobu ñu doon saaga duñ taalibe dafa mel ni rek euh, mbërëm làmb bu simmeeku di bëree wala wéykat bu taxaw ci seen wala jigéen juy jaay boppam jamono jooju mu koy def moom la waaye du lislaam kooku su leeree rek wax ji dina yomb dina neex a dégg ñetti mbir lay wax ba cay njëkk mooy ñu bàyyi suñu xel eh, ci vidéo ak image yu ñuy siiwal dafa am solo ndax tey amut kenn ci ñun muy tiijaan ak lu dul tiijaan muy murid ak lu dul murid muy xaadir ak lu dul xaadir koo xam ne xamuloo ci sa sëriñ loo xam ne boo ko waxee ci pénc mu tas loolu amul amul kenn ci ñun it koo xam ne am nga waxtaanu biir néeg boo xam ne su yegsee ci pénc mi bakkan ndax waliyu yàlla yu sell yi rey neen leen ci wax dëgg euh, Seydina Aliou karamallahu wajha wax na ne xam naa ci mbelli xam-xam su ma ko waxoon ñu gën a sell ci yéen rey ma kon du lépp waxu euh, kon loolu wax ko du problème te sufiyanke dafa am nu muy yaree sufiyanke su lay yar dafay fexe ba faar mbooleem mbindeef bu nekk ci àdduna nga teewal sëriñ bi soo ko teewalee am ci moom mbëggeel ëlbati ko bëgg mboolem mbindeef moo tax man maa ngi xàmmee naa feq yi ku ma dégg nga taxaw naan man sëriñ si yëpp laa yemale damay xam ne naa feq nga ndax euh, benn xamoo leen moo tax nga yemale leen wala bañ nga ku la sikk moo tax nga yemale leen waaye mbëggeel bu ànd ak shawqu doo ko am ci ñaari nit ci kenn nga koy am mën a jëriñu ci moom loolu su ma la ko waree jàngal dama la naan dugal kër sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillahi radiallahu anhu yàlla na yàlla gërëm ko ka nekk taalibey sëriñ Fàllu Mbàkke soo ko ne demal nekk taalibey sëriñ Saaliw mu bañ soo ñëwee ci yoonu Cheikhu Tidiane ki nekk taalibe Maodo soo ko ne demal nekk taalibe Baye Niass mu bañ léegi nag euh, loolu am nga taxaw ne ñëpp benn leen dangay ngay contradict sa bopp li am mooy dañoo mënta tàqalikoo danga warta tal keneen ba di wàññi àqam looluy dëgg kenn ngay gëm mu doy la nga sukk ci buntam fëgg fa yàlla ba jot fa yàlla jot fa yonantu jot fa ngërmande ndax link bi benn la mbir mi yàlla la mu jox yonant yonantoo séddale yonantu moo ne yàlla joxe may sédd ku ne nag lam la sédd noonu la mel xam nga tey soo maam sëriñ Oli Touré radiyallahu anhu dafa wax mu ni sëriñ du rëy bët ba koy xoolee rëy di nga tudd benn sëriñ wala dineen tudd sëriñ nga ne fàtt daanu ci suuf sa poos du ko fekkee sa xol sedd sëriñ boobu mën neen koo tudd sax kenn na xéeféer la kon ki yàlla rëyal sa kaw sa kanam rëyal ko kemtalaayal rëy waaye bul wàññi àq kenn bépp sëriñ buñ toog ci pénc waxtaanee ko jullit bu sell mer nañ ko waxee moo baaxul bépp sëriñ bu ñu waxtaanee ci pénc nañ ko war a waxtaanee ka mer na fekk nga xéeféer nga kon ñaari àtte yi duñu benn wax dëgg am na solo waaye waxin dafa am solo te communication dafa ñor yàlla daf ko ñor ba def ne wa ma yantiqu anil hawa yonentu du wax lu mooy coobarem kon yàlla gàddu communication communication dafa ñor yàlla ba bu mu yónnee Moussa Moussa dafa sàkk mu yónni Haruna ndax moo ko gën a ko làmmiñ kon euh, communication lu am solo la moo tax léegi kenn munta waxal diine sax lu mooy nga am communication bu baax ci biir loolu nag suñ ñëwaatee ci mbir mi nga xam ne moo fi am islaam rek moo am ndam grandeur moo feeñ ndax ñaara am xam nga damay dégg ñu naan vidéo bi lu yàgg la vidéo bi du lu yàgg maanaam wax su jugee dem ca pénc ma jur fitna saa yu jugaatee rek lañ ca war a teg rek mooy la cay tegu mooy tuub tuub nag moom jarta sori ñetti sarta la rëccu li paase jéggalu ko diggéene doo ci dellooti ku ko teewal yàlla jéggal la Sénégal nag mooy réew moo xam ne doo tooñ ba reconnaître na da nga tooñ tooñ dafa xaram yàlla du dimbale ku tooñ nga dem jéggalu lu ci bëri da ngay jéggalu ngir pression bu bari sa kaw attaques yu bari nga jéggalu pour nit ñi bàyyi waaye néew na kuy jéggalu ngir reconnaître ne lam wax waxu lam def defuwul mu jéggalu yàlla loolu lu néew la ci senegal moo tax sax nag da ngay préparer sa wax lu defuwul benn ci sob euh, dooleel góor jigéen ñaar ci saaga kilifa ñett ci def lii def lale préparer jéggalu télé bi la ñëw jël si nga wax musiba bi bu nit ñi demee ñetti fan nga ñëwaat jéggalu te télé ba du supprimer vidéo bi tuub bu dëggu da ngay supprimer vidéo supprimer fa nga waxoon. kon loolooy senegal moo tax nag réew mi xaw a doy waar e, Gana mesre moo toog ci biir murit ña waxtaan fa waxtaan boo xam ne yàqut pas-pasi murit tooñu tijaan waaye ñu vidéo ko génnee ko dagg ca la leen neex mu taal fitna ci pénc mi ndax wax ja waxu wut tooñ la wàññi xàq sëriñ Touba la wàññi xàq Cheikhu Tidiane la lu tax ma wax ne wàññi xàqi Cheikhu Tidiane eh, la mooy sëriñ Touba ba muy wut yàlla jaar na ci tarixa yu bari Tidiane ya ci la bokkoon ba mu demee ba am yàlla yit wàllu yàlla dafay gore dafa tagg Cheikhu Tidiane taggu yoonam moom wàcc na waaye nag yàlla mis jox yonantu mu sedd Seexu Tijaan moo jox yonantu mu sédd Seex Ahmadou Bamba ku ne ber yoon di yar sa nit ñi ci yarin bu rafet tabax baax murit bu sell ak tijaan bu sell doo leen xàmmee la leen di boole mooy alxuraan la leen di boole mooy yàlla dañuy bëggante duñ bëgg a tàqale ko te buñ tàqale ko nammante léegi nag moom wax na 2018 coow li ñëw 2020 na taxawaat waxtaanaat ak askan bi wax nam demee indi ñett ci sartaay tuub bi nit ñi dëgg ko jàll senegal lu ne xew na fa te romb na moom la olof di wax ne mbootaay gu wéy jekk waaye su fekkee ne loolu dafa am coow li am ndax àdduna loo jot tey rek keroog la doon bees ci yow am na ñu bari seen yowmal xiyam taxaw na ndax dee ne waaye ñun ñu ngi ci àdduna suñu yowmal xiyam taxawaguñ kon mbir mu nekk soo ko jotee rek keroog la bees ci yow waaye soo ko jotee nag yëg ne li a xew dafay defal sa xol bi gànna juumee ndax nit ku dul juum amut ndax lam wax eh, man nag dafa am nu may nu may nu may waxee lam wax eh, lu ñaaw la luy yàq mbokk lam wax fenn la amul ndax Cheikh Moussa Ka bi mu nettalee woy Cheikh Moussa Ka ba pare daf ne ku muy wax ku dul Cheikhu Tidiane moom gànna moo précise ne Cheikhu Tidiane la wax te Cheikh musaka Ka waxut loolu ndax tagg katab Serigne Touba du wàcc xàq kenn te Cheikh Moussa Ka tagg na eh, taalibi Cheikhu Tidiane di bàyyi Niass kon wax ja amul rafetul ñaareel ba bim ñëwee quartier général loolu mu def du jéggalu wax dëgg yàlla dañuy waxtaan ndax ñun ñëpp bokk mbir mi den ko war a defar gis nga olof daf lay yar aaya wax dëmm aaya la wax yàpp boo demee bawal ndawal la ñuy wax dëmm niti guddi la ñuy wax ak day na duñu la wax dëmm waaye su dëmm lekkee xale na nga ñëw pour régler da nga naan dëmm bi moo lekk yàppi xale bi kon moo yu may utiliser c'était juste pour adresser li am ni mu amee ndax ñu mën koo jàll fa good and for better ku nekk continuer ci leneen loo rekk la euh, ñëw na maa ngi gërëm Hamidou Niass woo na ma nee na den bëgg den lay estati neen roy gànn ci bëgg sëriñam taalibi bàyyi dañoo am yar suñuy wax ci dal gi loolu rafet na mais lii du mbiri baay lii amul dara lu mu def ak baay Cheikhu Tidiane la waa Daaka ci lañu bokk waa Taaleen yi ci lañu bokk waa Maodo waa na waa Medina waa Daaru Omar Ndaw kër Alaaji Omar Ndaw waa kër Sëriñ Oli Touré ñii ñépp ci lañu bokk ak ñu dut ñii ndax kuy lim du mëtal dafay du juum daf daf du mëtal ñi ñëpp bokk ci kenn tuddut leen kon pour man boo tooñee Seexu Tijaan yi nga xam ne tooñale nga Sëriñ Tuuba tooñaale communauté tijaaniya ya dangay ñëw wax leen ne vidéo bi yàgg na lii laa doon wax jubluwuma ci lii maa ngi tuub maa ngi jéggalu man gànna suma bopp laa jox hàddiya Sëriñ Tuuba jaami mbindee fi yàlla yi leen attention Cheikh Ahmadou Bamba dafa am cër ngir ñett dafa jaamu yàlla mi jar a jaamu topp yonantu bu jar a topp bégal yàlla ci jaam ñi lu mu am jox ko jaam ñi te soxlaalu leen dara moo tax mu wax ñu ne tooñu ma suma borom tooñu ma suma morom lii moo ko may cër moo tax lu jaam ñi di am am na ko lu walliw yi di am am na ko lu yonantu yi di am am na ko lu yàlla di maye am na ko kon ku wéeru ci sëriñ Touba tooñ lenn ci xeeti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tooñ lenn ci ahlu suufa jéggalu gi dafa war a sedd xol ndax sukk terewut a yóbbuy óom Bichri ba mu ko dalee ci wax ju rafet ñu daggal ko ojoom waxal ko lu mu waxul ni mu jéggaloo ba tey sa xol def ciy sedd waaye Gana defut loolu dafa ñëwaat tagg yenn ci waa kër bàyyi wax boppam pare dem loolu rafetu tooñ nga ba pare ñëwaat tooñaarti du lu rafet foog ñu adresse issue yi man nag su ma njort bu rafet su ma xam tuuti communication ak nit suy wax nu muy waxee li ma njott ci gànn mooy ñu ngi koy yedd ñu ngi koy waxal ndax nam daan xaabaabale mu ngi wàññeeku léegi gën naa dal te loolu is very good parce que gànn su teewee teewalut boppam suñ koy déglu dégluwuñ ko Cheikh Ahmadou Bamba la ñuy déglu kon wax ci sëriñ Touba jarut éventer jarut waxal ko lu lum mu waxut jarut waxee nuñ koy meree nu nit ñi di meree déedéet wax ci sëriñ Touba da nga koy simplifier ndax sëriñ Touba dafa fekk yàlla sori yonentu nëbbu nit ñi réer mu dajale yépp ci ay xasida boo jàngee xasaayit tagg nga yàlla wéy nga yonant wéy nga wàll yu ñaanal nga nit ñi éena nga leen jàmm lii mooy xasida xasida dafa mel ni portable ordinateur lépp looy war a def wala google sax la nga lépp lu waaye soxla ci google mu jox la résultat loo bëggee xas xasida rek mu ñëwee la fa kon pour man loolu lu ñu war a lu ñu war a adresse la ba tey ndax mbooloo suñ meree man ña ca wax laa gën a ñeme ñi noppi ndaxte dafa am lu doy waar lu nit ñi xamul mbooloo mu dajaloo ngir yàlla te yàlla tax wékku ci ginnaaw sëriñ nga merloo leen lam mën a yàq dafa bari ki ci ki ma ci gën a ñeme man Cheikh Ahmad mooy ko wax ndax boo waxee rek ma xam sa tolluwaay kon ñu jóge ko foofu ñëw ci mbir yi oustaz Abdou Sàlla Ndaw bim déggee gànna li mu wax sëriñam damay dégg nit ñi di jaawale kontex yi kenn ku am xel doo mer ci géwél bu tiim sangam di ko tagg waxuma laa nag taalibe bu yàlla uññil sëriñam bam xam ay leeram xam ay maqaamam di ko tagg nga di ca mer xaw de sa tolluwaay ci yàlla waaye man Cheikh Ahmed Cissé gëw ma ne jullit nga ndax benn màndoo yow tagguñ sa yaay tagguñ sa baay lu sa yoon ñaareel ba ka xam la muy tagg yow xamoo ko loo ca mere ñàkk tawfiix rek man de noonu laa ko firi waxuma nag loolu la suma xalaat laa wax man ni loolu laa ko firi euh, ginnaaw bi nga xamee ne dégg na Gana Messere wax la mu wax lu mënti xew muqaddam la imaam Hassan Cissé moo ko yar defar ko bam nuru imaam ci jëmmu yarekat la kilifa la jàng na boroom xam-xam la waroon naa faje neneen lu dut wax yam wax nam ko waxee def leen dog nangam gànna na torox na xala ko ku ko defut or nga bàyyi loolu moom danga nga koy kondem amul rafetal ci digg bi ngay jaar rafetul du mën a rafet te loolu mu wax su fi imaam Hassan sa nekkoon lim def nii la koy digal bi nga xamee ne Cheikh Abdou Ndaw wax na loolu bugguma koo layal na dafa mer ku mat dëgg mooy soo meree nga dal nit ñi foofu leen rawante ndax wàllu yàlla waxuma la nga tooñ ko waaye soo tooñee àq yàlla rek mer na waaye da ngay tooñ yàlla tooñ leen ñu xajook yow kon Cheikh Abdou Ndaw juum na waaye la ko yàlla digal ci àtteeb sariya bu leer ñun ñëpp ñu xam ko audio la defoon bu doon jéggalu dafa war a defaat audio dugal ko fa ko dugaloo waaye dafa bàyyi audio ñëw moom ci jëmmi boppam toog jéggalu déglul jéggaloom tuub na li xew wane na ne dafa meroon wane na mbëggeelam ci gànna ne bi gànna di wax histoire am di jooy daf doon jooy moom mi ngi amee waxtaani gànna tax na mu gën a xam lu bari ci Serigne tuubaa loolu lu ko gën a rafet bi Abdou Ndao defee loolu lu mu ko wàññi. lu dul murit yu bari bég ci moom tijaan yu bari bég ci moom waaw ñaar nag ñu nekkee ci ëhlu tasawuf kii juum ci xàq Seexu Tijaan kii juum ci xàqi Gana Messere waxut Sëriñ Tuubaa waxut yoon yi murit Gana la wax mu jéggalu jéggalu bu rafet audio la defoon toogaatu waxaat huit minit wax mbokk gi wax cofeel gi ku gën a sell ci kanam yàlla yéen jullit ñi xam-xam-xam laay wax ñi am xam-xam ñi xam diine waxuma ku am xalaat ak ku amul xalaat loolu kooku waxuma ko ki gën a sellale mooy ki jéggalu rafet tey Abdou Ndaw jéggaloom bi may na ko sañ-sañ mu dugg ci biir murit duñ ko def lu mooy ziyaar ko ngir bëggee ko ngir mbokki jullit duñ def lu mooy ndokkale ko duñ def lu mooy masawu ko ndax amul murit booy tooñ mu xam ne da nga ko tooñ nga ne ko baal ma mënut laa baal kooku amut kon su lii leeree ma jàll ci nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi amuñ beneen itte lu mooy jël vidéo sëriñ si di tasaare wante lu mooy saaga sëriñ si lu mooy xas leen may wax ne seetlu leen ne ñi topp musiciens yi di yuuxoo ko tàccu di topp mbër yi bu combat amee dootuñu fanaan ci néeg di garde ngir bañ ko ñëw def ay eh, mbir ñoo ñoo ñëw ci kër sëriñ si jàppee ko mbiram làmb wala football dafay dem sa ba léegi da ngay wax sëriñ ñu ne waa championnat local yi ñan leen parce que football lañu xam ak musique ak làmb waaye taalibe bi nga xam ne den ko yar tàpp ko ni fëriñ dugal ko ci fuur lakk ko ni mburu su paree dana nemm du wax du def kon képp ko gis muy def yëfi wax ji may wax si nii nag euh, juumuma ndax lii du live mën naa ko modifier mais sooy adresse mbir ci communication dañ lay may nga utiliser yenn termes yi ngir ña ngay waxal xam ne ñoo ko moom kon maa ngi xel balaa baat bi di génn pour yow miy déglu nga xam ne juumuma xam naa li may def di jëfandikoo jëfini doomi xaraam ci jël photo sëriñ def seen profil te du ñoom ne tiijaan laa waaye sëriñ Tuubaa nangam nangam nangam nangam nangam jël foto sëriñ Saaliyu Mbàkke wala sëriñ Tuubaa wala maam ibraahima Fall ñu baax ñooñu le ne murit laa waaye nangam nangam nangam nangam nangam doomi xaraam yooyu den leen war a xàmmee ndax benn boroom téere dafa bind di défendre tasawuf mu ne ku judd ci yoon ci sariyatul islamiya bu sell doo bañ wàlliw doo saaga wàlliw moom loolu la wax loolu laa gëm kon nga gis ne ñi nekkoon di supporter mbërum làmb yi di leen taxawee di topp newetaan yi mu jaral leen jamante paaka mu jaral leen rey seen bakkan suñ ñëwee ci kër sëriñ si loolu la indi ma wax ne nag taalibe yi ñett leen ki nga xam ne dafa bëgg yàlla bëgg yonantu namm ko di mur muriid dem jëli ay askar di laajte mbaax di ko jéem roy kooku du gàcceel benn sëriñ du wax ci benn sëriñ lu ñaaw kooku mooy taalibe yàlla ko yàlla yàlla yàlla na ko yàlla may mbóotam sëriñ bi benn ñaareel ki nga xam ne àddunaam dafa perte jàngut diine xamut dara ñëw rek ne ci sëriñ bi laa ne mu dajee ku ko mënta dimbale mu ne ko bëgg sëriñ bi doy na ku xamut su la bëggee lu mu leen dana la ko jëriñ dana la ko yàqal ñaareel ba ki nga xam ne dafa ragal ragal na ñàkk doole politique ragal na ñàkk nguur ragal na ku ko saaga ragal na ndangam ragal na ku ko xas mu dem rek jàpp benn sëriñ bu am popularité ne man fii laa bokk te daraay sëriñ bi ñoru ko ñi nekk ci gouvernement bi yépp ne taalibey cheikhul xadim leen ay tijaan leen taalibe bàyyi leen bu doon dëgg ci ñoom Sénégal mu ngay àttee sareetu islam yéen ndax sëriñ soosu loolu leen xamoon mais dañuy fen waxuñ dëgg lu diine ñàkk ci Sénégal ñoo ko def bi fa tubaab bi nekkee bi mu demee ñoom la yar teg leen fi ba pare ñooñu ñoo ñëw ci kër sëriñ si ne ñoom taalibe leen nan ngay nekkee taalibe ñu dénk lam réew nga mën a def référendum bu dëgëral sa réew waaye munoo def référendum buy dëgëral diine lislaam ci réew ma waxoo dëkk fi may tëjee mooy dama bëgg ñu bàyyi xel ñaar muy zikarkat yi ci pays yi ak waxtaankat yi nit su fekkee wax ja ngay wax nga yaakaar dépasse ci nga yaakaar loo mën aman naa doo ko jaarale yoon te su ngeen seetloo vidéo bu ngeen gis waxkat di wax mu wax toj toj rek ñu ngi ko doon jox xaalis def leen jàngat bi daj naa ci fukki vidéo ak juróom-ñaar ci tijaan yi ak murit yi tijaan yuy wax murit yi loo xam ne taal nam réew ma di ko xool bañ koy wax nit ñaa ngi ñëw di yuuxu ak di leen jox xaalis kon ñiy waxal pays neen xam ne waxaluñ seen bàyyi yi waxaluñ seen maam yi maam yi jàmbur la ñuy waxal ak bàyyi jàmbur neen ca wax lu waxu ndax bu ñu leen saaga seen sëriñ leen saaga de waaye nag bàyyi jàmbur leen saaga ak maam jàmbur ñu wax lu yem waxuma la bul wax a sëriñ bi su sëriñ bi dee yàlla waxal ne mooy yàlla ba suba ku la fa fekk wax la dara moo la tooñ waaye bul jël sëriñ bi nattale ko sëriñi jàmbur wax ko lu waxul am na ci taalibe bàyyi maa ngi koy gis sëriñ bu toog ak i taalibeem wax ba wax lu waxu taalibe bu toog ci kanami sëriñam tiim ko na ko yaay yàlla sëriñ ba ne pat gis naa loolu man taalibe ba xéeféer la sëriñ bi xéeféer la ndax kuñ ne yaay yàlla te weddiwoo ko dëggal nga ko xéeféer nga vidéo yooyu yëpp lu garaaw la du lu defu zikarkat yi ñoo gën a iñaan ñoo gën a nafeq ndax suñ tesee jotaay ñëpp war a tagg sëriñ bi war a bàkk yàlla ku ne day iñaanee sa moroom micro bi ku ca moom jotaay bi dafa lay wóor ne wanal diw ne maa moom jotaay bi yàlla taxut dangay ngay woo nit mu ne la su diw ñëwee du ma ñëw mu ngi am man ma dàq zikar kaay la ñu zikar dama mën a siikar am baat baat bu unique ni may waxee nii muy dugg ci xol yi nit ñi naan hee kii mën a wax ci ñoom nit ñi ñoo ko man waxuma ko wóor na ma ne dama mën a zikar bi ma ci duggee. ñu ma ciy jox xaalis ma dem ba su may dem dayra di compter fan leen ma war a joxe xaalis su ma du jox ma bàyyi ko ndax yàlla taxul keroog laa bàyyi zikar ku ma gën a neex baat man gisuma ko ah léegi nag su demee ba zikarkat su demee daraja lay wut xaalis la ci bëgg mooy waral ngay gis zikarkat yi di déformé laa ilaha illallah la waa kër Baay daan wéy ñu ñëw sant lay yàlla loo loo ilaa loo loo bokkul ci zikar laa ilaha illallah muhammadu rasulullah amul maska ngir yàlla sàmm ko bañ ñu yàq ko léegi dañoo hay lalla yaa ngi koy def yaa amu ca laa ilaha illallah amul xaaf kon ñu ngay yàq zikar si dem neen nag ba mbiri zikar mystical music la ko angale tuddee zikar dafa war a doon loo xam ne boo ko yëgee rek tiit mu jël sa ruuxu gi rek yëkkati rek yóbbu ci yàlla waaye léegi zikar yi seen clip bi sax dañ koy def mu mel ni clip bi àdduna ñoom la ñuy copier léegi zikar day neex ci nopp waaye du neex ci xol da ngay mar yàlla bëgg zikar da ngay dem di déglu ancien zikar taalibi bàyyi daf leen di dal doo xam koy déglu Babacar am ba léegi mu ngi xew Babacar Thiam war naa xewi ndax nam doon tuddee yàlla bu ci yaroon nit ñooñu tudd ci yàlla Babacar Thiam day xewi léegi nag zikarkat yu bon yi nga xam ne duñu wax lu baax duñu wax baat yi mu baax ñoo créé fans club yi da ngay dégg nga ne kii ni mu tuddee zikar baaxul ñu saaga la danga bañ diw zikarkat yi ak ñuy waxtaanal pays baaxul su fekkee yow amoo mécc nanguwoo liggéey àll baa ngi nanguwoo bay sa liggéey mooy sëriñ bi mu ne dem di toog ci télé yi di wër di waxtaan rek mooy sa liggéey wër conférence yi di wax rek mooy sa liggéey di nga wax lu waxut njuumte bi yëpp ñii la waaye sëriñ Saliou Mbacke nga xam ne ca tool ya la doon dem tabax fa këram nekk ak taalibe yi ba bugut a xàmmee boppam ak taalibe yi musta wax lu waxuwut ndax àdduna jaralu ko ko yàkkamti jaralu ko ko tagg bu rafet jaralu ko ko ñu estati ko jaralu ko ko ñu ne ko yaa fi mën jaralu ko ko yàlla rekk la doon waxal musta wax lu gaañ maam Abdou Aziz Sy Dabakh mi amoon ay tool di bay damay tudd ay tool rek waaye mën na ñàkk nekk tool dara jaralu ko wax képp koo gis ci réseaux sociaux muy wax dëgg te yàlla rekk tax dafa màndu ci koom-koom yaakaarut la muy wax moom dafay wax rek ngir jàmm yàlla moo tax du ragal ku ko mere du leb la ca wax ja du ca fay bor sëriñ buy neexal taalibe yi sax su taalibe yi toogee du leen wax yàlla du leen wax yonent lu ko neex lay wax kon loolu tamit lu yàq la beneen bi fa may tëjee suma kàddu mooy euh, wax naa ñaar fukki minutes ak ñaar ñu coppati sa vingt neuf mel ni may tëkku Gana Messere man xam naa Cheikhou Tidiane bëgg naa ko ku yàq àqam duma la tëkku duma ko def ndax su seexu tijaan mëtee lam mët man lam mën jarut ma tëkku li ma wax sëñ Abdou Fata Jili sëñ Jili abdu Fata soo demee ci Rafa TV euh, vidéo ba ñeenti minit la ak fukki fukki seconde ak juróom-ñaar boo demee ba ci 3 minit 14 secondes li ma wax sëñ Jili mu Abdou Fata waat na ko wax na ne billaahi wallaahi tallaahi ku bañ sëñ Tuubaa soo dee dem safar moom loolu la wax. kon mo ku takk montoor da ngay am heure maag sëriñ Jili moom lu ñu wax ñun ñëpp bokk wax rek li ma wax man mooy lim wax Seexu Tijaan su ko tuubut ren ba déwén dana ko gis léegi ma laaj benn laaj laajte su ma mbokki murit waxuma sëriñ Touba dañ koy génnee ci mbir yi ndax wax ji neex waxuma ay njabootam doomam bokkuñ ci waxuma mu muqaddam yim yaral boppam bokkuñ ci xaaral ma jël benn sëtam bu ko mat sët muy sëriñ Seex Gaynde Fatma wala sëriñ Sidi Maxtaar mii yal na yàlla yàggal ko fi lool te mu wér ci mbégteem mu bari mi te rëy ndax nangu ngeen ne ñaari surafaa yu mag yii ma tudd nga xam ne xamuñ ndax ne maa ngi dund yàlla ak yonantu leen tal ba këlee dem nekk aljanna kii ne fi ma ñaan mu yàgg lool te wér ndax nangu ngeen ne danaa ñëw ci seen àq wax leen lu waxuun mu jig ma tontu bi mooy déedéet lii laa wax nag Gana mi sëriñ Moussa Ka wëy Seexu yi wëy ngir barkelu ci moom ak barkellu ci sëriñam mu ñëw défier wëy yi tuddee ko Seexu Tijaan wàññi àqam wàññi wàlle mbooleem ku teewal Seexu Tijaan ci réew mi du Maodo du Canaba du Cheikh Omar Foutiyou Tall du Baye Niass du maam Alaaji du maam xalifa du Cheikh Omar fu Cheikh Omar Ndaw du maamu Ngatan du maam Makhtar Touré ñoom ñëpp mu wàññi seen àq ndax moom bu tuubut loolu dana ko jig lii rek laa wax ñu jël ma estati ma gën ma gën ma siwal ci àdduna bi waaye soo waxee lu baax ñu siiwalee ko ci anam bu bon su eggee ci borom xol xel mu rafet daf naan ana vidéo ba ñu ne mu ngi nii mu seetaan du ma fi nekk nag naan xam naa seti diw diw woo na ma di déedéet ñi ñi ma woo yàlla tax ñu ma yàlla tax ma wuyu leen maak ñoom la du ma utiliser loolu di ci jàngale li ma gëmoon te waxoon ko loolu laa wax sëriñ tuubaa tooñut boromam tooñut moromam doomam yi rafetal neen ci murit yi rafetal neen ci mbokki jullit yi ak ñu dul jullit sëtam yeeg taalibeem sell yi ku saaga yaa bon sa bon yaay doomi xaram ju tekkiwul dara mu yaay wër di saaga nit ñi vidéo kilifa jàmbur yi ñuy jël di sànni wante neen ko arrêté ndax fii koo fi jël vidéo sëriñam yónnee ko ko mu ngeeg sa vidéo sëriñ boo xam ne moo ko bokkuma ci yooyu dugguma ci liñ war a wax soo seetloo suma wax musuma attaqué gànn awma ko maanaam dama koy seddal lu ma xam xaw ma ci moom dara lam waxta waxuwut laa adressé ngir ñu defar loolu nekkin bi mën a rafet ñu ànd dox ci yàlla ak yonent bi nekk ay mbokk ñaar fukki minute ak ñaar ma def ko ci audio wax lu rafet ci Sëriñ tubaab murit toog déglu ko jéggi li ma wax sëriñ Touba jéggi li ma wax doomi Serigne Touba yi jéggi li ma wax àndandori Serigne Touba ñaawlu li gànna wax nga saaga ma ca doomu murit kon dafa mel ni gànna moo la gën a ñor ci Serigne Touba te gànna amut nekkut li ko may daraja may ko siw mooy dafa tudd ku tudd yàlla waxtaanee ko waxtaane yonent di nettali waxam ñëpp ko mën walla boog ñi yàlla may tawfiix ñoo ko mën te kuñ ci bëgg bëgguñ la sëriñ baa tax. kon nan ngay gisee ni tagg sëriñ tubaa tagg doomi sëriñ tubaa ñaawlu lu gànna def nga saaga ko ngir dafa ñaawlu lu gànna def kon yow xamoo dara ci mbiri lu murtadaa mu bàyyi doon wax xamoo nu mbiri tëddee kon maa ngi ndokkeel daal eh, ñi nga xam ne ñu ngi dox jàmm di ko wax di ndokkeel Abdou Ndaw mi nga xam ne juum na wax lu waxuwut mu am grandeur reconnaître ne dafa juum jéggalu maa ngi ñaawlu gànna li mu def gisuñ fu mu jéggaloo bu ko defee na ko defaat rek jéggalu tiyaabo la ab murit day woyof soo tooñee communauté bañ mer nga jéggalu wàññiw dara te dinaa joxe benn misaal gis nga doomu aadama zahir la ak baatin zahiri doomu aadama du dara ndax man àttanuma deux cent tonnes benn tonne sax est-ce que àttan naa ko waaye su ma baatin bi tey mën naa xalaat ci nit mu dugg ci oto accident rek mu dugg ci oto accident waxuma man de baati ni doomi aadama laa wax yéen ñëpp dafa leen di dal nga toog namm dara xalaat ko rek mu ne jëleñ sa kanam kon biiri doomi aadama moo gën a ëpp doole biti doomi adama kon nit ñi xalaat si seen biir xalaat yooyu lu dangereux la lii nag dinaa ci def waxtaan benn bis leeral zahiri doomi aadama ak baatinam nan lay nan lay manifeste ci biti biir gi lu tax ñu war koo mën a gën a bàyyi xel te islaam dafa ñëw ngir sàmm biiri doomi aadama islaam sàmmut biti bi biti bi li lim ko sant lu ndaw la waaye biir gi la amal solo ndax bunti gëm yàlla bunti lislaam shahada ci biir nga koy confirmer wax ko ci làmmiñ loolu rek tegtal na lu bari lu ñu war a wax maa ngi gërëm tey jéggalu ci guddal gi da ngay ñëw bëgg a waxtaan ñaari minute waaye xër ak bëgg mbokk yi ak bëgg yoon wi nga ne yoon wi mooy yoonu tasawuf yoon wi mooy yoonu dëgg Eh, nga bokk ko ki nawle ñii di xaadir ñii di saasaliya ñii di xalwatiya ñii di muridiya ñeen ñëpp ngeen war nekk benn ndax bu ngeen nekkee di xeex yéenay perte ndax am na ku taxaw di leen xeex te seen ji jàmmaar lay utiliser ndax gis naa ko taxaw ne sëriñ si dañuy xasante dañuy taggante pour am ca ndam loolu yëpp mun neen koo moytu ni ñu koy moytoo nag mooy ku ne waxal sa sëriñ lu la neex te bàyyi sëriñ jàmbur wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu léegi nag nit seetaan suma vidéo mer lool di wër suma numéro pour saaga ma léegi-léegi nit seetaan suma vidéo kontaan lool di ko wër pour ndokkeel ma suma numéro ci anglais laa ko mën a wax plus 220 374 99 97 plus 220 374 9997